xamné mbokam ne gens wala xaritam wala kuko djégué jege jàpp nañ ko ci manifestation bi du ñëmé ñaan intervention parce que c'est pas c'est la république qui a pris les choses en main parce que nous avons un état en 2021 2023 bi ñëw ñu defaat lu gëna graw ñu ñu ñuy saccager ay banque ñu toj université ñu toj CESTI ñuy ñuy ñuy tal ay kër di ay banque di ay marchandises

un deal kon li nga a pas de la femme gendarme wax. non dafa terre à terre dama ne est-ce que nekkul un deal bu foiré c'est-à-dire on a entendu Barthélémy Diaz dire que Ousmane Sonko fi mu nekk maa de fa on a dit ça. on a entendu dire que. Ousmane Sonko on a on l'a entendu dire à Barthélémy Diaz que moom moo l'initiateur du dialogue politique. oui. Et bi mu koy def boobu Ousmane Sonko ak Khalifa Sall yëgoon nañ ko. danoon dem waxtaan ak Macky Sall bu ñëwee rendre compte Ousmane Sonko ak ak ak saal loolu teyul sa xel un ñu dem ba. Mhm. ñu jàpp ko Barthélémy Dias ne lii ñu ko jàppee nii man maa ko ci man maa ko ci mën a génne Ousmane Sonko mu ne dafa julli ji woon ci ban ci ban fànn maanaam. nan la ñu mën a barricade Ousmane Sonko cinquante cinq jours. xëy dindi ñu xëy fajar dindi barikat yi. Mhm. waxuñu dara deux jour xaw ma trois jours. Ousmane Sonko kenn setti siwu Ben benn responsable bu fa ñu setti si ko du ben mbokam bu ko setti si du ben xaritam bu ko setti si teyul sa xel vendredi jot Ousmane Sonko neena dem na julli ji juma te Ousmane Sonko bu daan genn dañ ko daan photo dañ ko daan vidéo bu daan julli ji juma photo wuñ ko vidéo wuñ ko dara xey rek ñu ne la japp nañ ko parce que amna ben femme gendarme waaw amna ben femme gendarme bo xamanteni mo doon filmer procureur genn wala genné ben note ne femme bi oto bi dafa paan ci buntu kër gi. loolu la ñu wax. loolu lañuy waxoon après ñëwaat le lendemain xaw ma ministre la xaw ma procureur xaw ma ku ko ci waxaat ne pour ñëpp la ñuy topp te femme boobu noonu ci renseignement général ci la bokk. femme bi sa déclaration boo xoolee plainte bi femme bi nee na dafa ñëwoon ba foofu dafa am benn xaritam bu mu doon seet. léegi mu jël téléphone di woote Ousmane Sonko romb ak ay gardam ñu ne moom lay filmé ñu nanga téléphone bi. mais da nga bëgg a wax kon dil bi yëpp Ousmane ci la bokk. ah man daal sama xel ñaaw na ci maintenant damaa jàpp ne. mën na am mën na am parce mën na am xam nga état mën na waxtaan ak yow ci benn deal waxtaan ak yow ci benn affaire nga d'accord nga ñëw ba ci biir affaire bi foire mu wor la waxuma ne loolu moo am mais loolu mën naa am mais dama ne.

ma naan si dafa facile dafa yomb trop ci liñ jàppee Ousmane Sonko. Mhm. ak li fi ak li fi xew yëpp Ousmane Sonko din nañ barricade bi benn kenn ñëwul këram kenn seet siwu ko. Mhm. amul dara amul benn information. jëlee ko Ziguinchor si euh, euh, chemin de la liberté boobu mu tuddee woon ñu ne jàppee nañ ko ak ay mbir yu doy waax te yooyu tam. ba pare yóbbu ko këram. yóbbu ko këram teg ko fa. léegi ko jàppee Ziguinchor lan moo tax bañ ko jàppee Koungheul la xaw ma lan moo tax yóbbu wu ko kaso. Mhm. këram lañ ko yóbbu barricade këram. di préparé wu nag état daf ko barricadé ba pare di préparé wu procureur nee na bi ñu dindee barrières yi dañ doon xaar Ousmane Sonko constitué wu prisonnier dañ ko doon déglu. foofu la état commencé woon politique. parce que suñ demoon jàpp ko ci affaire u Adji Sarr bi suñ demoon jàpp ko konoon bu boobaa mën nañ ne jàpp nañ ko ci affaire u Adji Sarr bi jugement bi dafay nul boobaa tout il il sera toujours éligible. ñu nekk fa di pro di programme wat procès ñu nekk fa mu amaat beneen combat mais état dafa toog di ko xaar jamono jooju laa ne état nag mu ngi politique instant bi dafa toog di ko xaar pour mu constituer wu prisonnier. ñu ne ma benn instant xam ne kii constitué wu prisonnier ñu tendre ko piège daal di koy jàpp jàpp ko ci beneen affaire. Mm-hmm. léegi biñ ko jàppee ñu ne jugement bi dafa war a nul Ousmane Sonko bind lettre d' acquiescement de non acquiescement xaw ma lañ ko wax voilà mu adressé ko greffier. Mm-hmm. waaye ay la lettre de non acquiescement kay euh, président euh, tribunal euh, chambre chambre criminelle lañ ko war a adressé. Mhm. greffier jël ko. Mhm. le greffier va dire que la lettre est est est yoonu greffier nekk fi donc moom greffier la ko la ko la ko la ko la ko ñu ne jàpp nañ ko ci trouble à l'ordre public ak yeneen ak yeneen. daal di koy téye ko. ñu ne lële yoonam nekku ci loolu je laisse les les les les les juristes ñoom ku ci nekk wax ci sa xalaat mais dama jàpp ne ci sama xalaat rek ci analyse kese laa ko teg Boy Djiné par exemple am na plus de dix mandats de dépôt mm-hmm. te mandat de dépôt bu nekk du nulal beneen mandat de dépôt bi dañ koy jàpp ci lii def ko mandat de dépôt mu rëcc rëcc boobu infraction la buñ ko jàppee defaat ko mandat de dépôt mm-hmm. mu defaat beneen infraction mu defa une infraction ñu avons ko ci infraction ko mandat de dépôt Si Vous am plusieurs plus de mandats de dépôt avant de prison avant de purger peine donc ci xel ne Ousmane Sonko Chili, je ne suis pas juriste je suis mais ci xel laa ko teg buñ ko jàppee ci lu Sonko bi nañ ko lool Ousmane Sonko bi affaire. mais Sonko parce que waxatuñ sax mbirum Adji Sarr. waaw mais parce que parce que. sànq wax nga ko ci bi wax ba nga ne état bu mu jàppee Ousmane Sonko ci la commencé politique est-ce que xamuñu woon ni ni maanaam lii nga xamante ni moom lañ ko condamné muy deux ans de prison ci affaire Adji Sarr mënuñu ko cee tëj wala mënuñu ko cee euh, ñu éligibilité moo tax ñu créé beneen. ah si ko xañ éligibilité dès lors mu nekk mu nekk condamnation en contumace rek. Mhm. droit civique am ak kiiwam dafay dafa koy perte. mais bu bu constitué prisonnier bu constitué prisonnier bu xoolal gis nga bu constitué prisonnier mm-hmm. dafay bind su bindee ñu notifié procureur bu nous ko notifié ñu xam constitué un prisonnier légui, procureur ci jëmi boppam instant Nous mën na ko mandat de dépôt ne ko wóoluwuma la su ko neexoon jamono jooju. Mm-hmm. da koy dóor mandat de dépôt ne ko la bàyyi nga dem ma programme waatal la li nga xamante ni moom procès téye ko ci bi programme procès mm-hmm. mais il faut qu'on règle ce dossier là.

de dissolution d'un parti politique. nous avons invité Pastef parce que Pastef ne s'est jamais démarqué ci Pastef d'accord nous nous université ñi doon université bi dañoo taxaw di Ousmane Sonko est-ce que euh, imputé naturellement. Pastef deful communiqué deful ben communiqué né d'accord ma ci avant ñuy tass Pastef euh, ki bi xawma ma bañ ko tassé la xawma moy moy cocktail molotov bi ñu sànni woon ci bus bi. Mm-hmm. tu as vu le communiqué de Pastef. Mm-hmm. il s'est démarqué. Mm-hmm. Pastef dafa wax carrément andul ci lool lu ñaaw la ba paré condamné ko. pourquoi defuñ ko won ci yenen affaire yi ci yenen ki c'était ça en fait le le le truc de Pastef ils n'ont pas protégé Ousmane Sonko parce qu'ils n'ont pas eu de plan B ou d'un deuxième Ousmane Sonko quand tu n'as pas un numéro 2 dans un parti tu as sacrifié le numéro 1 Dans le parti politique yi Sénégal on ne protège pas le numéro 1 parce qu'on n'a pas le numéro 2 parce que pour soulever le problème de numéro 2 il y a un problème mais Pastef nous avons protéger Ousmane Sonko bonne génnee ci élection 2019 avec ak Nous avons di ànd ak moom di di contrôler mais ban erreur mo gëna reuy nga tok yow nga xamanteni ministre Mame Mbaye du sa vis-à-vis nga tok nga attaquer ko nga ne dañ ko épingler ak té lolu ñeneen ñi sax ñoko ko wax mo ñu baal mais Ousmane Sonko mi nga xamanteni nek na ci administration xam administration il devait pas commettre cette erreur là. donc yoy non ay erreur la yu nga xamanteni Ousmane Sonko def nako ko ak Pastef maintenant li nga xamantene ne moy mom moy mooy moom mbir mi yaa ngi wax naan tension amna. tension bi xama nga kañ la kañ la kañ la kañ la wàcc Macky Sall a désamorcé deux bombes la bombe des deux cas muy Khalifa Sall ak Karim Wade et la bombe de la troisième candidature Macky Sall bi mu waxee ne nekatul candidat en 2024 bobu la lu bari wàññeeku boobu ñu ci bari ñu doon xeex dañoo ne woon comme Macky mii dematul jaratul ñu xeex ak moom nañ ko mënul ay la wéewén koo muñal 10 ans wala 12 ans kay mën nga koo muñal 6 mois xanaa. Mhm. nañ leen ko muñal mu demee woon mais dañuy desandi ba tey moom ci li nga xamante ni rek moom mooy kaawu euh, wala condamnation bu euh, Sonko ak Adji Sarr parce que tey gis nañ ministre de la justice li nga xamante ni wax na ko nee na condamnation bi est définitive et irrévocable.